On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Euh, il, faut euh, avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, euh, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte euh, dans le prochain avenir. Euh, Sénégal rek jàppal ne fukki réew la ak ñeent Sénégal nag kenn la ca fukki réew yooyu ak ñeent nag ñoom la ñuy wax ne ñoom ñoo ngi signé mbir mi depuis 1961 waaye lii moom dafa jiitu. accord yi moom dafa jiitu dem ba 1945 fukki réew yi ko signé nag ci mujjoon bu jëntal gi après l'indépendance mooy bene Burkina Faso Guinée-Bissau euh, Côte d'Ivoire Mali Niger malheureusement Sénégal Togo euh, Cameroun euh, République Centrafrique ak Tchad Congo Congo Brazzaville Guinée équatoriale ak Gabon wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokkee xarit yi safoo di seetaan seen chaîne youtube Fafa TV ñi ngi am mbégte ak kontante di dellusiwaat àndaat ak yéen ci jataay yi nga xamante ni xam-xam rek lañ siy jëlee ñeel ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan waaye ñeel ñi nga xam ne ñoom ñooy askanu Sénégal ci loolu ñu am mbégte ak kontaante àndaat ak sunu kilifa sunu waajur al imaam Alioune Badara ndaw mi nga xam ne yàgg nañ di di ko topp yàgg nañ di ànd ak moom ci loo xamante ni lu ñuy jariñ la tey nag incha allah ñu ñëw ci tomb boo xam ne tomb bu spécial la euh, mu jëm ci waxtaane li nga xam ne moom mooy histoire euh, colonialiste yi nga xamante ne ñëwoon nañ coloniser ñu waaye it dem ba jëmmi jamono ñu ne ñu am ngeen indépendance waaye ci loole ñu gis ne bàyyi nañ fi ay accords yoo xamante ni ci lañ continuer woon di ñu noot ba suñu jamono yi jamono jii ñuy dund imaam def ci xutba boo xamante ni xutba bu spécial la macha allah souligné it ay tomb yoo xamante ne nii tomb la yoo xamante ne nii ay accords yu ñu si yoon yooyu yu yu tubaab bi si ñëwoon bàyyi ko fi la léegi nag mu nekk yoo xamante nii lu jara xam la waaye it incha allah ci biir waxtaan dinañ ko détaillé bala ñëw sori dañu jox imaam mu nuyoo ak mbokk internet yi incha allah ñu ñëw ci euh, waxtaan wi imaam asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala ali euh, sëñ Dia ñu ngi leen di nuyuwaat di leen delloo nuyoo di nuyu sunu mbokki internet yi ci biir réew mi. ak biti réew di ñaanal ñëpp jàmm comme ni nga ko waxee incha allah ñu bàyyi leen ak laaj yi ci ni nga ko waxee ñaari phase yi nga xam ne ci lañ bëgg a waxtaan muy euh, li waraloon colonialisme ak gannaaw bu colonialisme yi demee liñ fi wëcc comme ay jeexit. macha allah imaam euh, ci sunu réew li ñu xamee woon imaam wala boog role bi ñu koy xoolee mooy jàkka ja daara ja waaye bu demee bay xutba yàlla nee na yonent nee na mais yow dañoo seetlu ci say xutba maanaam da ngay indi ay thèmes yoo xam ne thèmes yu spécial la maanaam yoo xam ne dafay dafay dafay nekk euh, actualité nga xamante ni dafay dëppoo ak jamono ji ñuy dund yooyu maanaam dafa am ñu la ciy jàppale wala ndax yow sa gëstu moo la may nga mën a xam euh, thèmes yi nga xam ne moom ngay aborder ci say xutba. waaw jërëjëf euh, sëñ Abdoulaye Dia sëñ Moussa Dia ab njaayeen la am naa tabarakallah eh, li nga laaj am na solo lool ndax li nu xamee woon yëlimaan démb ak eh, li nu xamee yëlimaan tey dafa mel dafa xaw a wuute boo xoolee yëlimaan yi démb ya ka ca jiitu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> ñoom seeni xutba dafa dëppoo woon ak alquranul karim te alquranul karim di ko tax a jóg mooy dund bi ni muy ñëwee di la jàngal pas-pas bu wér ak la koy yàq pour nga moytu ya koy yàq noonu na la lay jàngalee jikko ya ya ca rafet ak ya ca yàqu pour nga fat yu baax ya xeex yu bon ya noonu it noonu it la lay jàngalee encore euh, nu nuy dundee ci biir kër ak nu ñuy dundee ci société ci penc mi ak nu ñuy dundee ci état moo tax sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga gis ko mu jiite woon euh, ab état gannaawam itam ñi mu gannaawaloon di sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain nekkoon ay homme d'état ñooñu moo tax euh, seeni xutba euh, daan làmbe dund bi lépp dañoo dem nag ba jëmmi jamono bi ñu jonjoo ak yeneen i civilisation ki culture rawatina ci suñu civilisation bi nga xam ne mooy bu occidental bi dañ ñoo xaw a marionnettiser marionnettisation mooy dañ ñoo tàggat ci ak al toppe goo xam ne ñoom ñoo ñuy rëddal naan ñu ilimaan fii la war a yem ci lii la war a wax warta wax ci lii ah ñu nit ñu nangul leen ko loolu moo ñu yóbbee ñu dem ba jëmmi jamono ilimaan yi euh, colonialiste yi maanaam occidentaux yi rëddal leen fu ñu war a yem ku ca bëgg a passé nag rëdd woowu ñu tudd leen ne yow da euh, amul respect ci ordre waaw ah, ordre kan <laughs> ma ne ordre kan ñi nga xam ne nag ñoom fañ leen yem loo ñoom yem nañ fa fa leen occidentaux yi yem loo yem nañ fa ñu tuddee leen ne ñoom ñooy ñi nga xam ne euh, yem nañu ci euh, mbattu ñu euh, mën leen a aj ci gayet mhm. bu ko defee kon loolu rek loolu rek la sañ ja waaye xutba moom li ko tax a jóg mooy li ñuy dund wax ak nit ñi ci li ñuy dund. macha allah ñu gis ne lu am solo la maanaam nit ñi commencé nañ di yeewu di topp xutba yi bu baax ndax li ko waral mooy li ñuy dund nga xam ne lislaam jàngale na ko ñu xam dëgg-dëgg lan la ci lislaam jàngale. defe naa loolu bokk na ci importance su xutba léegi nag xam naa ne bala ñoo ñëw ci tomb yi ah, ndax am na danga nga souligné fukki fukki tomb ak benn yoo xam ne yëpp ay accord la yoo xamante tubaab bi su ñëwoon na ko bàyyi ko fi waaye laataa accord yooyu ñu bëggoon a ci histoire colonialisme nga ñëwal ñu ci tuuti rek. jërëjëf euh, sëñ musa dañuy wax ne colonialisme dafa dugg ci benn cadre boo xam ne ak yaatal la ca colonialiste yi jublu woon ndax biñ demee ba. la révolution industrielle euh, juddu ca France ca ca tugal du France rek waaye ca tugal yëpp mooy tugal nag mooy Europe pour ñi nga xam ne dégguñu wala bu baax maanaam réewi tubaab ya dañoo am aajo yu bees gannaaw bu révolution industrielle bi juddoo dañoo am aajo yu bees aajo yooyu nag mooy liy doxal e eh, seenu usine ak la koy xambu matt ma koy xambu te ñoom bi ñu xoolee seeni suuf la koy doxal ca la koy xam lañ fay transformer lu ci bëri ca matière yoruñ ko loolaa waral ñu ne kon nañ yaatal euh, seeni dénd euh, seeti yeneen i suuf yoo xam ne lañuy ñuy xamee seeni usine daañ ko fa mën a am daañ fa mën a am it ay matières yoo xam ne daañ ko mën a transformer jëndee ko ci ñoom njëg yu yomb man koo delloo si waat jaay leen ko def leen ak marché nag def leen ab ja nga xam ne ñoom ñoo leen di jox lañ leen di jox ci njëg yu yomb suñ demee transformé ko indi ko jaayaat leen ko ci prix yu cher. looloo waraloon euh, pays occidentaux yi daal di dugg nag euh, ci sunu réew yi teg ñu coono yu méttee méttee bi ñu ñëwee ndeysaan sunu maam yi ak sunu baay yi fi nekkoon ñoom la jàppoon def leen daanaka rek ay jaam di leen gasloo mbell yi. ñoo ko daan yenu ci seen i bopp di ko di leen ko yóbbul ci seeni gaar ñu ci bëri sax ñu jàpp leen yóbbuwaat leen Europe ñu dugal leen ci seen i tool lépp luñ fa soxla ci mbay ñoo leen koy bayal loolu yëpp ay ay soxla la yoo xam ne ñoom dañ ko soxla woon te mënuñ ko am ci seeni réew loolu nag moo waral ñu ne kon nañ ko seeti fu ñu ko mën a amee loolu benn benn sabab la ci waaye am na ci yeneen sabab yoo xam ne sabab bi diina la mbirum diina la ndax euh, bul fàtte ne lislaam dafa yaatu woon moom itam bàyyi ko ca Makka di law di law di law ba dugg Europe dugg Asie daanaka jeexal ko dem ba Siin réew yooyu yëpp nekkoon ay réew lislaam dugg si fii ci Afrique alhamdulilahi rabbil alamin teel fee dugg lool sax dugg googu nag mu duggoon ca Europe dafa fekkoon ni diina diina yooyu amoon na ca christianisme amoon na ca judaïsme am ah, mu fekkoon na fa it athéisme maanaam ñu xam ne ñoom dañ ne jàppuñ benn diina. l'islam nag nekkoon pas-pas boo xam ne dafa set dafa sell dafa neex a joxe dafa neex a wane ñaare boo ko wanee borom mum xel rek mu da koy daal di xam lum ko fekkee woon mu yor ko da koy daal di mën a gedd teg ko ci suuf ndax xam na ne gis na lu gën. moo tax tubaab tubaab yi bi diina duggee ci ñoom muy law lawin wu gaaw ndax euh, am na nañu xel xam ne lii mooy dëgg Espagne gii ngay gis am réew la moo xam ne am na digg lépp l'islam la France gii ngay gis l'islam dugg fa ba daanaka jeexal ko dem ba niis gox yooyu yëpp mu daal di koy islamisé loolaa waral nag ña fa nekkoon euh, te di ñu mbubboo diina te gëmuñ woon diina ya fa nekk ñu teel a def fi pexe loolu nag mooy sababu diina yi ba lay bëgg a teel def defi pexe ne kon nag léegi nañu jéem a nax ñii fii dund diina euh, fénqalante leen ak ñee di dund diina ju ñuy tuddee lislaam kon gis nga loolu it bokkoon na ci euh, li leen taxoon a ju maanaam sabab yi taxoon euh, colonialisme am ñu bëri dañuy foog ne la guerre croisade chrétiens yi ñoo ko doon diriger déedéet dëgg la nag ci turu christianisme lañ ko doon def waaye ña nekkoon ca bopp yee jamono booba ay franc-maçon lañu ñoo fexe ba mobiliser diine catholique yi comme ñoo fa gënoon a bëri ñu nax leen ci turu diina mobiliser leen finqalante leen ak jullit ñi mu nekk ay guerre yoo xam ne ñu bëri ci ay jullit faatu nañ ca ñu bëri ci ay catholique faatu nañ ca ñoom loolu moo cay seen seen intérêt na ñaari diine yi jeex loolu bokkoon na ci soob yi nga xam ne ci gàttal comme loolu taxu ñoo jóg dañ koy gàttal foofu rek am na yeneen ay sabab nag yu économique euh, yu sociale yu ak yëpp yu militaire yëpp a nga ca waaye dañ koy yemale foofu incha allah pour mën a dugg ci accords coloniaux macha allah imaam euh, ni ngi ñëwale ci histoire colonialisme am na solo waaye sa xutba bi yeesu da nga souligner fukki tomb ak benn yëpp yoo xam ne yëpp ay kii lañ ay euh, accord la yoo xam ne tubaab bi gannaaw bi nga xam ne nee na jox nañu indépendance bàyyi na fi accord yooyu accord yooyu ndeke depuis 1960. bu bërki démb lay doog jeex nee nañ la vingt 26 bi comme ni nga ko souligné ci sa ci sa xutba bi loolu naka la mën a amee ci réew mi maanaam ñi nekk ci réew mi wax loolu sax xamuñu ko wala boog ñi ko xam ne pat ne pat waaw <laughs> ne pat jërëjëf euh, sëñ Moussa onze accord yooyu ñoom la ñuy tuddee ay accord secret moo tax ñu ne dañ ko secret loolu tax ñi ko xam nëbbu ko maanaam ay accord la yoo xam dañ ko nëbbu signé entre la France et les pays euh, noirs maanaam lenn ci sunu pays yi nga xam ne ay pays noirs lañ leen di tuddee accord yooyu nag sëñ Moussa <coughs> boo gisee ñu bëree bëri réeree ko moo di ne fooguñ ne sax lu mel noonu war naa mën a am moo tax gëstu euh, gëstuwuñ sax jëm ca ndax accord yi buñ ko leeralee ci bopp doomu aadama bi la muy njëkk laaj boppam mooy waaw lii moom ñun sunu maam ya doon si jëg tubaab yi jamono booba xanaa dañ leen a joxoon am ndox muñ naan mu nëxal seen xel ya euh, ba tax na xel yu nëx yooyu ñu nëxaloon seeni xel moo tax ñu nangu lii waaye lii moom ko ànd akum xelam du ko nangu ca dëgg-dëgg kon loolu la moo tax mu nekk lu secret nit ñi gëstuwuñ jëm ci waaye nag lu réel la lu nekk la accord yooyu nag bi nu ko toppee di ko gëstu mat na fukki accord ak benn yoo xam ne jiitu na sax 1960 déedéet ba nga ba nga commencé 1945. maanaam kon jiitu na lu jiitu ñu indépendance am nañ indépendance jërëjëf li ñuy indépendance bokk. Ah. waaw li ñuy tuddee indépendance jiitu na ko. accords yi ñu ngi ko signé seen diggante fukki réew yi ak ñeent depuis 1945. Ah, ba ren jii di. l'an deux mille vingt ci vingt six décembre bi lañ ne ci la accord yi di war a jeex ñoo seen réew yooyu nga xam ne ñoom lañ tuddee ay ex colonie euh, euh, de la France man nag xaw ma lu ci indi ex bi mën nañ ko tuddee rek ay colonie française ba tey ndax moom boo boo dégloo accord yi da nga xam ne ba tey jii euh, ñun ñooñu ci génn guñ ci fukki secteur fukki accord yooyu nag ak benn xam naa ne waxtu wi dana dana xaw a yaatu. pour ñu gën ko mën a détailler ndax doomu aadama yi ñi nga xam ne dañ leen koo nëbboon ñu xam dëgg dëgg dëgg dëgg euh, li leen teg ci ay xeetu ngaañ voilà. xam naa bala ñoo ñëw ci détails yi dëgg-dëgg euh, maanaam est-ce que ragaloo ne secret yi comme que depuis lu jiitu li ñuy tuddee indépendance mi ngi fi woon te ñiy dund ci réew mi xamuñu ko wala boog ñi ci ëpp est-ce que ragaloo ne jàpp nañ ne war nañ ko mën a renouveler te duñ ko yëg. ak bu fekkente ne renouvellement yooyu am na yan inconvénient la mën a am wala ndax est-ce que dina am avantage bu dee dina ci am. laaj bi neex nañu trop sëñ Moussa ndax ki signé ay accord yu lay lor ci sa tur yëguloo ko mu lay lor lu mat euh, juróom-ñaar fukki at ak juróom ñu judd woon 1945 fi mu ne nii euh, seen dund moom daanaka jeex nañ génération boobu boo xoolee ñu néew a fi des ci gën a bëri jeex nañ. ñu di ñu ko nëbb depuis 1945 ba ba l'an 2020 kenn mënuñ la koo wax nanguwuñ la ko wax kooka boo amee xel mu ñaaw ne mbaa duñ ko renouveler waat yeesalaat ko ci saw turaat dañ naan aha lu jàppandi la lu mënul la plus que possible loolaa tax sax xam naa bu ñu tànnoon xutba mi ne teeñ ko cee def comme le 26 décembre bi ci la accord yi jeex bu ko defee activistes yi jógaat yilimaan yi jogaat sëriñ si jógaat ah, wane nag lii lii nag doy na waaw doy na loolu nga ragal ñun ñii moom lañ ci ragal moo tax ñu ne nañ ko weeje ah, tasaare ko ba ñëpp xam ngaañ yi ñuy dund bu ko defee kilifa yu jóg mën a taxaw nag ah, tëral ab limite ne doy na ngaañ yi doy na loolu la de euh, kon xam naa dañuy dugg rek euh, directement ci point yi nga xam ne su souligné nga ko ci accord yi premier accord bi nga détaillé ñu ko wax ñu lan moo lan euh, jërëjëf xam naa première accord bi sëñ Moussa lu reelu la moom la ñuy tuddee la dette coloniale ñu ne lan lañ jublu ci la dette coloniale mu ne mooy ñu rembourser infrastructure yi nga xam ne ñoom lañ fi tabaxoon ñoom ñoom ñoom français yi ñoom colonialiste yi gaar yaag port yaag aéroport yaag tali yaag ya ca des foofu nag boo gisee ma ne lu reelu la nit koo xam ne jógee na cëm réewam yor doole ñëw faagaagal ñu bari ci sunuy maam sunu maam yu bëri ñoo leen rey loola ñoom dañ leen waroon a topp ñu indemniser ñu dañu war a fay ñoom ñun ñoom lañ war a topp waaye xooluñ liñ fi def ci dégâts matériel xooluñ liñ fi def ci dégâts humain nga xam ne ay doomu aadama la jël sacrifier leen ñii ñu lakk leen ñii ñu euh, dóor leen i bal ñu daanu ñii ñu lafañal leen bêtises yooyu yëpp France xoolu ko waaye moom lam xool mooy gannaaw bu ma reyee seen i maam exploité seen i suuf ah li ma fi jotoon a tabax nag ci ay infrastructure loolu moom da ngeen koy fay hmm? waaw lii la de lii de mooy tomb bu njëkk bi moo tax ma ne mbaa du ñoom dañ leen a nàndaloon euh, lu lu nëxal seen xel ya bañ nangul leen loolu. Ah, bañ fàtte bañ fàtte dégâts yi bêtises yi ñu fi def. normalement bañ leen ne problème mu gaar yeeg ruus dañ leen waroon laaj bakkanu doomu aadama sell tega màggaay ga ak nag fa ko suñ borom teg waaye yow jàng nga alquran boo demee ma yi maayida suñ borom dafay wax ne ah, ku rey benn bakkan man qatala nafsan bi xayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka annama qatala annaasa jamian waaye nag wa man ahyaaha fa ka annama ahya annaasa jamian ñoom ñu ñëw rey fi ay ay ay ay junni junni junni doom aadama loola doyut li fi nekkoon ci mbell yëpp ñu tibb ko yóbbu ca Europe di dem nag ne ñu may nañ leen indépendance waaye li mboolem li ñu fi tabaxoon dañ leen koy topp da ngeen koy fay fay ak premier accord bi rek doyoon na sëkk pour ñu xam ne. Ah, looloo tax nga ne loolu ah, looloo tax nga ne dafa reelu. dafa reelu dafa reelu lool reelu na trop te itam euh, euh, la ca tegee sëñ Moussa mooy reelu na waaye raglu na waaw ñaari la boole. man li ma ci gën a jaaxal mooy ñu signé ko lu jiitu indépendance depuis boobu ba léegi ñi ñu koy topp euh, te ñun xamuñu ci dara. Mhm. te ci sunu tur lañ ko signé. mu ngoog looloo ci gën a yéeme. te kilifa ci lislaam day Euh, dafa am ñaari laay yu may jàng rek benn bi mooy washawirhum fil amri ba tubaab bi ñëwee ne leen dama bëgg ngeen si signal ma lii lañ waroon njëkk a def mooy dajale magi réew mi ci jamono booba ne leen kat lii de la euh, tubaab bi wax nee na daal lépp lu fi tabaxoon euh, def fi ab matériel am loolee ko tabaxoon ci alal dañ ko koy delloo loolu mooy maandu ci njiit diisoo ak kaw xeetam man leer na ma ne bu jamono booba mag ñi ma xam ñu dëkk ñu nekkoon ci réew mi doon dund diina bu ñu yëgoon ne lii la fi tubaab bi nar duñ ko nangu waaye nag secret moo tax ñu tuddee ko ay accord secret. est que ci loolu it gisoo ne ñoom tubaab yi réussir nañ ci côté maanaam fexe nañ ba li ñuy wax tubaab bu ñuul ñu ñëw ci sunu biir tànn ci sunu biir askan formé leen ba ñu nekk ko ba ñu gëm li ñu gëm ñoom. ñu man leen fi teg ñuy doxal ñoom comme niñ niñ niñ ko bëggee. comme na ko tubaab ba bëggee comme na ko tubaab noonu la ko tubaab bu ñuul bi di doxalee. loolu réussite bu mag la bu mag la te malheureusement mooy wéy ba fii ba fii ñu toog nii. ba fii nu toog nii am na ay ngaañ yoo xam ne sunuy chef d'état ñu ngi dem di ko signé ci sunu géej gi sunu ndox mi sunu suuf si te ba tey jii ñun ñii duñu duñu duñu sax di yëg yëglu loolu moom vraiment lu métti la moo tax ma ne lu lu la lu métti la. njiit buy comporté woon noonu digganteem ak ña ko jiital wóolu ko kon loolu trahison la man dama jàpp ne ku liir fukki euh, accord secret yi da nga gis ne ñii dañoo trahir seen askan. Euh, xam naa day ñëw ci deuxième euh, kii bi ci deuxième secret bi nga xam ne mu ngi wax ci réserve yi nga xam ne mhm. pays francophone yi ñi nga xam ne France nee na moom la ñoom la ñoom la colonisé woon. ñoom la colonisé woon. Mhm. te nga xam ne colonisation ba ba léegi mu ngi fi. Euh, ñoom dafa am réserve boo xam ne ñu ngi koy déposé ci gafaka France. léegi réserve yooyu ci accord bi nu mu demee. jërëjëf loolu la ñuy tuddee ñaareelu tomb bi dañuy wax ne pays africains yi du doivent déposer leur réserve financière au près de la Banque de la France réserve pour ñi nga xam ne dégguñu wolof maanaam dégguñu làmmiñ wi nuy waxee mooy euh, dañ nañu bala ngeen am l'indépendance mboolem loo xam ne ay ku ay ay ay ay ay alal la yu ngeen am dañ leen dañ leen di digal ne na ngeen ko indi fii ci banque France bi maanaam gafaka gi nga xam ne fal France di denc ay euh, alalam ak yi moomee fam ngeen déposé ko fa moom moo am droit dencal ñu naan. wa kay ndax ñun dañoo euh, toll woon ci aalu ku matadi euh, sariya it nag loolu la wax daf ne wala tu'tu sufahaa amwaalakum allati la allahu lakum qiyaaman waaye nag warzuquhum fiha waksuhum <laughs> ma ne mbaadu ñoom duwul ne laaye boobu lañ jàng appliqué wu suñ kaw euh, sariya day wax ne nit ki su fekkee dafa dafa yembadi matadi bu leen ko jox seen alal ndax alal ji alal yàlla la waru leen koo teg ci loxol ku yembadi kon France noonu la ñu jàppee daf ñu jàppee comme ñu yembadi ba tax mu ne lépp loo xam ne ay réserve financière la eh, mënu leen koo dencal seen bopp na ngeen ko indi ci ci ci banque de la France eh, mu dencal leen ko fa <coughs> encore euh, du Sénégal rek jàppal ne fukki réew la ak ñeent Sénégal nag kenn la ca fukki réew yooyu ak ñeent nag ñoom lañuy wax ne ñoom ñoo ngi signé mbir mi depuis 1961 waaye lii moom dafa jiitu accord yi moom dafa jiitu dem ba 1945 fukki réew yi ko signé nag ci mujjun bu jëntal gi après l'indépendance mooy Bénin Burkina Faso Guinée-Bissau euh, Côte d'Ivoire Mali Niger malheureusement Sénégal Togo euh, Cameroun Euh, république euh, centrafrique ak Tchad Congo euh, Congo Brazzaville Guinée équatoriale ak Gabon fukki réew yooyu ak ñeent ñoom lañ signaloo këyit wi ñu signé nga xam ne lépp luy seen réserve financière dana gën a leer ci biir incha allah foofu lañ koy déposé. bëgg naa nga gën ci yaatal imam ndax boo xoolee. waaw chiffre bi nga tudd. Mhm. maanaam pour pourcentage bi nga xam ne moom la ci France di am. Mhm. très bien moo tax ma doon ma ne war nañ ko gën a leeral bu ko defee nag léegi gouvernance su politique monétaire boobu ka koy piloté di ko doxal mooy euh, gouvernement français maanaam mooy sunu kilifa yooyu ca France. amul nag benn lien bu ñuy am ak sunuy autorité financière yi nga xam ne ñoo nekk ci sunu pays yi ma la tuddal. muy banque yi ñuy tuddee CEMAC ak euh, CEDEAO lu dul joxe ndigal ñu topp mhm. loolu waral ndeysaan euh, ñu digaloon leen ne leen lépp luy réserve financière na ngeen ca jël yëkkati lu mat 65 pour cent maanaam téeméer bu nekk na ngeen ci yëkkati na ngeen jël juróom benn fukk ba ak juróom ñëw dénkuñu ko comme ñoom ñoo mat ñoom ñun mënuñ koo saytu buñ ko yoree dañ koy yàq mu ngoog loolu yemuñ ca di dañ caa tegaat ne am na lu ñuy tuddee ca ñoom ay ay ay ay compte d'opération ñenn ñu tuddee ko ay cas d'opération euh, foofu ca seen réew ma dañuy yëkkatiwaat ñaar téeméer bu nekk bu gannaaw bu ñu joxee juróom fukk ba ñeneen juróom fukk ak juróom daañu yëkkatiwaat ñaar fukk yoo xam ne dañ ko cay euh, boolewaat Euh, ci lim bi gën a néew kon 80 pour cent ci téeméer bu nekk ñun waruñ ko mën a dencal suñu bopp dañuy dem yóbbu leen ko. ñu dencal ñu ko. bu ko defee kon foofa ci seen banque yi lañ koy denc ci li ñuy tuddee et française loolu lu yéeme la ñu ne nag suñ li ñuy bañ mooy ay risques financier financier yoo xam ne ëllëg mën nañ dem ba mu dal suñu économie sunu finance. ñu mën caa yëkkati lañu lañ cay yëkkati jox ñu ko ñu mën koo dàmpe risque yooyu nga xam ne mën naa judd yemul foofu banque yi nga xam ne ñoo nekk ci zone euh, CFA bii nga xam ne ñun moom lañuy jëfandikoo dañ leen a imposer gannaaw bu ñu dénkaane fay benn fukk ya dénkaane waat fa ñaar fukk ya dañ leen ne nag ëllëg mën ngeen a dem ba soxla bor bu boobaa dañuy seet at mii li ngeen li ngeen déposé woon ci gafaka gi di gafaka ak France ñu seet nam toll buñ ne ah ñun waa Sénégal day déposé woon nañ ndàngami milliards ñu ne waaw nañ ca jël vingt pour cent waaw abal leen ko. ah loolu moom kay kenn dañ la ko war a jox kay waaye kenn warul la ko abal nag. lu yéeme la sëñ Daara. lii nag vingt pour cent yi moom am nga ci droit dañ la koy jox nga dem doxalee ko ya nga yëg ne ay manque manque léegi sa biirum réew boo gisee ne loolu doyut <coughs> mën ngaa ñëwaat ne leen man kat la buntu yoo bëggoon fat ba tey jii dafa des bu boobaa France mooy dajaloo ak ñi nga xam ne ñooy suñu ministre yi yor wàllu finance eh, jàng sa sa sa lii nga fi sa tawat yi seet ba xam jaar na yoon wala jaarut yoon gisee na jaar na yoon ca la ñuy door a yëkkatee waat nag léegi su boobaa 20 pour cent xam nga 15 pour cent lañ la joxoon ci li nga fi déposé woon yëkkati 20 pour cent ne lii nag dañ la koy lebal waaye liñ bëgg nga xam lebaluñ la ko pour nga delloo si ko bu dee téeméer dafay am pourcentage buñ ciy teg comme benn commerçant bu ñëwoon di leb si ci sa alal. daan moo tax ma ne lii lu lu lu doy waar la te bu ñu demee ba ne dañ lay lebal euh, ministres yi yor wàllu finance yëpp a ànd ca France dafa amaat lu ñuy tuddee décision finale moom mooy ñëw xool li ministres yi wax yëpp moom ànd na ca wala àndu ca su ca àndul dafa am droit de veto boo xam ne moom lay ñëw jël ko dóor ko ci kaw fukki ministre yooyu ak ñeent xamal leen ne li ngeen bëggoon a décider annulé naa ko moom kilifa gi. bu ko arrangé wut ko arrangé wut. moo tax ma ne mbir yi boo koy xool di ko xool ba ca kanam dangay dem ba ca waa nga ne lii daal xanaa doy na war daal kenn xamut na koy tuddee mu ko loolu de la. ah imaam eh, li fi développé doy na waar de. waaw xam naa ne day ñëw ci deuxième ci ci troisième bi. voilà moom itam mel ni xaw na am ak rapport tuuti ak. Eh, deuxième bi. xam naa bala ñoo génn lii sax danañu yëgal ñi nga ñi nga xam ne mooy sunu mbokk internet yi ne alal yooyu nga xam ne moom la euh, banque euh, de France di jël ci ñun banque de la France di ko jël ci suñu fukki réew yi ak ñeent lu mu tuuti tuuti tuuti chaque année waxuñ ne euh, laf ba démb ba tey de quarante cinq ba fi ñu toog chaque année buñ ko évaluer li ñuy jël ci ñun ci sunu koppar jaaree ko ci sunu réserve financière yi jaaree ko ci li ñuy perte ci benn tomb boo xam ne mu ngay ñëw ci kanam nga xam ne mooy nag wi dëgg nag mooy nagu nagu sow mi moom la ñuy tuddee CFA. chaque année lu mu tuuti tuuti cinq cent milliards de dollars mat na ko. cinq cent milliards de dollars. de dollars boo ko doon convertir. des dollars cinq cent milliards de dollars. nga xam ne boo ko doon convertir ci CFA dañ naan lu mu tuuti tuuti mooy nekk deux cent cinquante mille milliards deux cent cinquante mille milliards ndax da ngay jël cinq fois cinq xam nga vingt cinq la nga wàccee nag léegi cent cinq cent yooya lu mu lay jox deux cent cinquante mille milliards de dollars waaw loolu chaque année la chaque année waaw réew yi ni ñuy def dem loolu dafa dafa doublé maanaam suñu budget bi ñuy wax ne moom na ñuy moom la ñuy wote buñ ko buñ ko séddale woon ah ay yoon buñ ko séddale woon suñu fukki réew yi ak ñeent kenn ku ci nekk lu mu tuut tuuti dana ca bëgg a am lu mat euh, euh, ñaar fukki ñaar fukki junni milliards xam naa calcul boobu moom dama waroon def door a ñëw defuma ko nag waaye xam naa ne rek deux cent cinquante mille milliards moom bu ko quatorze pays ba ba dee kenn ku nekk dana ci jege lu mat vingt mille milliards vingt mille milliards tey buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko investiroon ci Sénégal buñ ko investiroon ci géej gi jëndee ko ay ponkali bateau chinois bi dana amati bateau bu ñu amul ñun est-ce que européen bi dana amati bateau bu ñu amul ba mën a ñëw ci sunu géej yi di ko di ko di ko di ko ngacci sunu xale yi di dee ci ci ndox mi buñ ko investiroon ci agro pastoral muy mbay meeg caawa gi est-ce que danañu soxlaati lu yàpp ñuy jëlee ci biti wala ceeb bu ñuy jëlee ci biti wala lenn lu ñu denrée alimentaire bu ñuy jëlee ci biti moo tax ma ne mbir yi boo ko xoolee dëgg-dëgg ci bëtu xel da nga naan est-ce que ñun ñi ñu jiite ñu ngi ñu ngi ñu ngi am ay ñu ngi réflex am nañ ay réflexion yu xóot ci li ñuy def moo tax man su ma ko xoolee dama naan bépp xale bu dee ci ndox mi eh, wala xale yi nga xam ne ndeysaan ñu ngi leen di tuddee ay sàcc xam ne yow sàcc fee ganaar sàcc fale am xar sàcc fale ab junni day sant dajji fale ab boutique sàcc fa euh, ñaar fukki junni fanweeri junni cinq cent mille million ñooñu sàcc yu yooyu hmm. ñu jël leen feesal leen dell ak kaso yi war a xool lu leen yóbbee ñoom sàcc yu ndaw yooyu ñuy sàcc ah, lu leen lii la seen alal jii ñu jël di ko gaspiller ci yeneeni loxo wëcc ko ci yeneeni loxo hmm. Euh, buñ ko investir woon ci réew mi benn xale dootu am euh, soxla pour sàcc waxuma laa na di dugg ci ndox mi euh, di def ba sa bay sa seeni bakkan di ca des par junni ay junni sax laay wax xam naa bokk na ci li ci gën a metti de mooy dencal la sa alal ba noppi waaw di la ci tegal ay conditions yoo xam ne waaw yow maanaam lu mel nii buñ ko xamee maanaam askan wi bu ñu seetaanee lu mel nii xam ko ban taxawaay lañ ci war a am normalement boo xamante ni lii war na jeex waaw wax dëgg ma moo tax sax ñu ne nañ nañu profité ndax moment moment bii dafa propice. Hmm, deuxième point bii ñu toll woon nga xam ne génn guñ ko jàpp naa ne bii dong bu ko xale yi xamee et kilifa yi xam ko danañ war a mën a taxawaat nag def bloc lii kenn mënu koo xeex ñaar mënuñ koo xeex kenn ku jóg pour jéem koo xeex ñu éliminer la. ah l'islam maa noo ko tax a jóg lis inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar beneen bi ne eh, wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa taqwa laay gi ñuy wut dafa lënkaloo ak justice dafa lënkaloo ak maandu moo tax ñun mënuñoo nekk ay jullit te réglé wuñ problème mu justice justice boobu nag ci sur le plan social sur le plan économique sur le plan financier domaine yëpp la te itam euh, euh, ma tagaat ci beneen kii moo di jullit bi dafa war a yëg ne moom dañ koo dénk suuf baat boobu di wax ne aay boobu di wax ne inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insan insan boobu nag mooy muslim kon ñun ñoo jël euh, sunu responsabilité ci ne dañuy yenu responsabilité saytu suuf moo tax ñu ñu tuddee ñu xalaa'ifa fil ardi summa ja'alnaakum xalaa'ifa fil ardi min ba'dihim li nanzura kayfa ta'maluun suñu saa euh, moo tax jullit bu jàpp ne l'islam yoonam nekkul ci dañ naan ko kooku dafa desee xam euh, l'islam ndax l'islam moom daf daf ko bañ ba séddale na ressources yi yëpp ci façon bu équitable mas naa ko wax ci benn ba ma ne ñun jullit ñi bu ñu xamoon euh, li nu yenu dëgg-dëgg euh, sunu organisation régionale yi yëpp ak tër yi ñu fay tër ñun dañ naan engagé wuñu ndax tër yi dafa woro ak tër yi nga xam ne moom la borom asamaan ak suuf tëral ndax lépp loo xam ne ressource financière la suñu réserve yi yëpp islam danaan nañ ci génne donc eh, asaka bu fekkee ne individu bi moo ko moom bu fekkee ne lu état bi yor la mu ne nañ génnee xumus ba laa koy séddaleel boppam waaw nañ génnee xumus ba eh, delloo ko ci li fuqara wu yeeg ñëm fa tudd allo ana maa xam ne seen fan lay xumus ba fale sax mooy fay u fay u fay u mooy alal yoo xam ne Eh, dafa jógee ci sunuy noon tàbbi ci sunuy loxo wala lépp loo xam ne rek ay maadin la mooy eh, mbell yi yëpp islam danaan nañ ko séddalee ni fa anna lillahi xumusahu wa lirrasuli wa lizil qurba wal yataama wal masakin silmaxa bii di yelwaan par suba teel ak eh, ku ñàkk ki ak xale bi diplômé ci université ba bëgg liggéey te amul moyen ñoom ñëpp seen àq la moo tax buñ ko jaaroon ci l'islam lii du mën a am ndax su boobaa lislaam moo moo ciy teg bët ci suñuy ressource financière teg ci bëtub responsable ci lépp lu génn ci suuf si danaan nañ ko séddalee ni ko yàlla waxee boobaa nag ndóol day jeex ci kaw suuf moo tax ala kulli xaal euh, ñàkk dégg lislaam moo nekk ngaañul lislaam waaye moo nekk ngaañul ñooñ lislaam waaye moo nekk ngaañul l'humanité tout entière ma la déggee daal mooy problème yi nga fi jot a souligné. ak yiy des nga xam ne dañ ko waxtaanee. waaw alxalul waxiit maanaam solution bi eh, képpe mooy lislaam mooy lislaam kese mooy mooy solution bi. moo tax nag lislaam moomu di solution ñoom danañ def tout pour bu ko nit ñi xam. boo gisee pexe yi ñu doxal yëpp <coughs> ci biir diina ji jékki-jékki créé yoonu xam yàlla woo xam ne dañ naan jarutul jàng lépp pour jullit ñi réeree diina la. ndax xam nañ ne ker bu jullit ñi xamee xam dana jur ci ñoom pas-pas xam dana jur ci ñoom jikko bu rafet xam dana jur ci ñoom détermination muy fulla ak fayda ci ne lu jaarul yoon dootu fi am moo tax amul lenn luy solution lu dul delloo siwaat islam yar nit ñi ci diina ñu gëm diina ndax su boobaa lépp luñ bëgg a doxalati ci lu dul yoon ci gëm diina dana du ko seetaan du fa nekk nag di def ay calcul naan alors waa lii man su ma ci xeexee sama bakkan des ci sama njaboot gi sama soxna si sama doom yi déedéet l'islam moom danaan la yow li ngay def nii sa devoir la sa bakkan bi du rot mukk ci lu dul ne ba dafa jot te lii ngay défendre boo ci faatoo kala yoroon moo yar sa njaboot moo tax système islamique képp mooy solution éducation islamique boo xam ne day global Euh, globaliser éducation spirituelle morale politique économique lépp boobu rek ay solution sa njaay macha xam naa ne tomb bi taxaw nañ ci yaatal nañ ci donte le sax liñ ci jot a euh, wax doyul mhm. buñ sañoon mu gën a yaatu wax nga dëgg dafa des ay tomb yu bëree bëri mhm. euh, troisième bi waaw ressource brute mhm. et naturelle voilà xam naa boo ma mayoon tuuti rek dafa am benn wax boo xam ne l'ancien président français bu ñu doon tuddee Jacques Chirac Jacques Chirac moo ko waxoon Euh, wax booba dafa jar fàttaliwaat africain yi euh, te dafa xaw a méngóog tomb bi nu toll. dafa waxoon ne nous devons être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent dans nos banques vient précisément de l'exploitation du continent africain. loolu de kenn ki seen kilifa ya waxoon na ko noon na daal ñun waa France bu nu juboon. te maandu wax dëgg nag jot na ñu nangu reconnaître moom mooy nangu ci ne sunu banque yii xaalis bi nga xam ne moo fi nekk la ca gën a bëri mu ngi ñëw bàyyi ko ci ni ñuy exploité continent africain yi xam nga kii ki ko wax moom dugul kuy waxantu ca ñoom ndax ku dem bañ jiital la nga jiiteem réew nangoo wax lii sam réew kon kooka lay mel na ni lañ doon nëbb mu ngi koy bëgg a feeñal. bu doon ci sunum réew ñu ne xëy na ki kay wax dañ ko saxal tàngal wala ndax dañu dugal poosam jërëjëf kee nag moom alhamdulilah rek kenn saxalu ko tàngal président bi la mhm. waaw. moo tax euh, dëgg-dëgg ma tegaat ci ne itam tomb bii nu toll euh, ñi nga xam ne ñooy européens yi depuis ñu créé euro mu nekk seen monnaie ñoom ñoom ci la ñuy door a xam ne ndeke France nii lay jëflanteeg euh, sunu réew yi. moo tax ñoom ñëpp ko condamné ne nag jot na France bàyyi jëflante wi muy jëflante ak africain yi man nag dama naan waaw nu ñuy toogee ñun kilifa yi ba ay jàmbur yu nekk ci Europe naan ko France lii ngay def jëflante ak africain yi na dakk yaa dootul bul fàtte ne itam daaw am na benn kilifa gu mag ca Italie boo xam ne waxoon na ko france yi noonu na leen lépp lu ñu dal ñun européens yéen a ko teg ndax yéen a mayul continent bi jàmm yéen a exploité seeni ressources minières yi nga xam ne ci lañ waroon a teddee seen réserve wu ngeen garder ko ci seen banque ba amatuñ luñ def ñëw nag daanu gisuñ kaw ñun européens daaw daaw rek la woon <laughs> bu ko defee. Ah, mbokk yi ñu ngi sant bu baax a baax di leen gërëm di am mbégte ak kontaan dellu si waat pour continuer sunu euh, ñu ngi woon di waxtaanee euh, secret yi nga xam ne euh, tubaab bi sañu woon na ko di jiitu. li jiitu indépendance doon ci ànd ak oustaz ba Badara ndaw ñu jotoon a am lu ñu waxtaanee ba tolloon ci tomb ñetteel bi bu ma juum. xam naa nag comme que temps bi ma ko dañuy. tënk directement. Mhm. tomb ñeenteel bi incha allah. Mhm. tomb ñeenteel bi defe naa mi ngi wax ci intérêt yi nga xam ne moo am ci entreprise yi. ak euh, marché public yi. mu bi sax ci lañ war a commencé Serigne Moussa. mooy le droit de premier refus sur toute ressource brute ou de découverte daal le pays maanaam tomb boobu li muy wax mooy. fukki réew yooyu ak ñeent France mi nga xam ne mooy seen kilifa moo am sañ-sañu euh, xool ca seeni mbel mbell mooy yi nekk ci suuf nekk ay xeeti njëriñ moom moo cay xool yam soxla ne yii laa soxla lum ca soxlawul nag mën na caa maye ndigal ne ngeen koo jox keneen ku ko soxla ngeen jaay ko ko waaye lu mu xas soxla moom c'est fini waaw lu mu ca xas soxla moo koy jënd doonte sax am na ñeneen ñu bàyyi ko feneen ak seeni prix yu gën yim ñu proposé moom looloo waral nga gis ngaa ji métti nga gën a métteeti foofu lépp loo xam ne suñu koom-koomu suuf la France teg na ci loxoom. ah loolu moom moo feeñ ci terre bi. ci euh, feeñ ci infrastructure yi nga xam ne mi ngi am nga xamante ne ni marché la woon ñeneen ak ñeneen ñëw proposé seen i prix mhm. ñu mujj jox ko ñoo xamante ni daanaka français yi lañ mën a wax ne ñoom lañ ko waaw loolu mu ngi feeñ ci tombu ñeenteel bi mooy priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appel d'offres publiques loolu la tombu ñeenteel bi di wax ne France ba tey moo am priorité ci lépp loo xam ne intérêt la maanaam xeetu njëriñ la ci ay xeetu entreprise yoo xam ne yi ñuy installé la ci réew mi bu bëgg indee bosam keneen indi bosam ñu bokk lu ñuy def France moo am priorité waaw moo am priorité. bu dee marché public. même bu fekkente ne keneen ki maanaam prix moo gën a baax. moo gën a baax moo moo tolloon nag lii nga doon laaj. moo feeñ ci TER bi rek feeñ ci sunu ak ah, ah, péage bi gis nga péage bi li ci musiba yi ci nekk kenn mënul laa wax nam tollu mbuxum bi moo tax jàpp naa ne génération yu yi ñëw euh, yooyu yëpp bu soobee yàlla danañ ko xoolaat moo moo feeñ nag ba ci maanaam point point bu njëkk bi nag moo feeñ ci sunu pétrole beeg gaz bi loolu moom ca mbel la yàlla troisième point bi la bu ci xas euh, fu ci France xas joxe prix keneen ku mën a jëwati joxe prix donte Euh, France moo yées moom moo am priorité sëñ bi sax lii lu doy waar la. lii lu lu lu raglu la. léegi boo koy jàngat sax sa xol dafay jeex ndax euh, lu mel nii naka la mën a amee ci dëkk nga koy dund ay dizaine d'années euh, mënoo koo xam loolu it dinañu jaaxal imaam information yi mm-hmm. nooy def ba kii ay ay gëstoo la koy may la may wala ndax dafa am ay téere yoo xam ne dañ ko bindoon bàyyi fi. waaw damay tontu laaj boobu ne. Hmm. gëstu rek la ndax yii yëpp nit ñi gëstu nañ ko bindu ko teg ko loolu benn la ñaareel bi it njumtukaay yi nuy jëfandikoo muy xarala yu bees yi dañoo facilité euh, léegi àgg ci information yi moo tax foo mën a nekk ci àll baag gis nga fi ñu nekk nii xam nga ab àll la euh, garab yaa ngi nii wër ñu waaye kura baa ngi nii mën ngaa indi sa internet mën ngaa indi sa lépp information boo soxla rek mën nga ko am kon yitte rek la yitte rek la tomb bi ñu nekkoon nag sëñ Dia ba lañ koo génn ñu am tuuti rek luñ ci yokkaat a ah, lépp loo xam ne service public la moo xam électricité téléphone transport port Euh, ak euh, grande banque yi lépp loo xam ne luy aju ci fànn googu la yëgal ne tey France moo ci teg loxoom ci suñu réew yi lii moo waral yii yëpp mujj na tey nekk ci seen loxo ñoo ko moom ñoo koy contrôler <laughs> nga xool na yii li ñuy dugal ci alal ndeysaan lépp day rombaat réew mi rek dem ñibbi France waaw mu nekk mbir mu doy war ànd ak loolu lépp ak euh, li nga xam ne jot na fi xew yu mel nii nga xam ne ay ay accord la yoo xam ne dox na ci diggante France mhm. ak yenn ci réewu Afrique yi mhm. ba laalaale sunu réew mi mhm. maanaam mu nekk loo xam ne média da cee waroon a jouer rôle bu rëy a rëy xam ne ñun ci lañuy sukkandiku ngir man di xam yenn information yi mais loolu taxul ñun ñu xam ci dara benn média bi da koo xamul da ko réeree wala ndax da koo xam dëgg ci tànkam. waaw man nag lu lu ñaareel li hypothèse bu ñaareel bi laa jàpp euh, ndax média bi ñu ciy yëngatu waram yi xam-xam lañu ay gëstukat lañu kon yu yu yii moom yuñ xam la mu ngi tolloog nag ñaare nit ñi ndax seen réew jaral na leen mm, ñu euh, tasaare yenn xam-xam yi euh, ak lu leen ci mën a fekk man dama jàpp ne loolu la moytu rek waaye yu mel nii moom ni ko waxee média bi kenn warut leen a gën a xër ci informer xeet bi ndax loolu mooy njëriñul euh, euh, média jàpp mu ne mukk lu ñu réeree la lu ñu xam a xam la conséquences yi juddoo nag ca feeñal ga laa jàpp ni moom la ñu daw hmm. <laughs> ah, <laughs> doy na waar de doy na waar imaam xam naa ne euh, ni nga ko waxee daal xam naa dañuy ñaan ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan mhm. ñu gën ci bàyyi xel nu mu gën a yaatoo ndax lépp euh, dañoo bëgg mu jur njariñ euh, li ci jiitu mooy askan wi nga xam ne ñoo koy seetaan ñu xam ne lii am na ci sunum réew gannaaw bi ñu ko xamee ban taxawaay lañ ci mën a am lañ ci war a mën a am pour lu mel ni jóge fi waa ba tey ñu continuer rek ci euh, secret yi nga xam ne France si ñëwoon na ko ak Sénégal laataa mu ñuy bàyyeek sunu bopp wala bopp comme niñ koy waxee ñu yegg ci tomb juróomeel bi mi nga xam ne mi ngi wax ci droit de fournir des équipements militaires ba nga xam ne jamono yee passé defoon nga ci xutba waaw léegi droit boobu noonu moom noo ñu koy faram-fàccelee ak lan moo ci laxas jërëjëf sëñ Moussa tomb boobu mooy bu juróomeel bi moo di ne France moo am sañ-sañ moo am droit ci fukki réew yi ak ñeent buy waxee nag droit exclusif mooy sañ-sañ boo xam ne eh, ko jug jagleel la moo ko joo bokk ko kenn ci lan lépp luy ay équipement militaire moo ñu koy jox luñ soxla ci équipement militaire moom moo ñu koy jox amuñ sañ-sañu jëggaani ko siin amuñ sañ-sañu jëlee ji ko fenn France moo ñu koy jox. même bu dee ci armes yi ñuy jëfandikoo. ba tey lépp luy équipement militaire rek moo ñu koy jox loolu yemu yemu jëli waaye it moo am droit de former les officiers militaires waaw de ces colonies fukki colonie yi ak ñeent ñi mboolem officiers yi fi nekk ñoo bokk fu leen di former loolu lu doy waar la. ci fukki réew ak ñeent yooyu. fukki réew yi ak ñeent maanaam fukki man sax maa koy tuddee réew waaye bu la neexee nga tuddee ko rek fukki canton ak ñeent wala fukki préfecture ak ñeent wala bu ngeen ko tuddee département yëpp ba tey baax na. wala gouverneur. waaw gouverneur kay gouvernance ëpp na hmm. <laughs> man dama jàpp ne ay ay ay sous sous préfecture lañ rek. Hmm. ak nuñ ko mën a tuddee daal euh, ñoom ñoo bokk fu ñu leen di formeler seen i officier militaire hmm. euh, loolu nag lu doy waar la ndax kii ñëwoon ci sam réew tooñ la tooñ say maam def fa lam fa def ciy dégâts wëlbatiku di dem ne la nag Eh, sa sa doole réew ëllëg ka la ko yoreel soob taalibe lay doon maa koy maa koy maa koy jàngal ba def ko ne mu ko bëggee door la ko indilaat baa bu jëwee du du fi nekkal kooka ndax taalibe ñaare day day nawloo sëriñam mhm. taalibe dafay nawloo sëriñam maa ngi déglu rek fan yi benn benn eh, mbokk bu baax sëñ daam sëñ daam kii Mbóoj xam ne moom itam eh, syndicaliste pur la moom yal na ko yàlla gën a aar muy wax wax ju am solo mu ne mu ne taalu bi day nawloo sëriñam ndax dafa am benn waay boo xam ne ci këram doom ji dafa liir kaye doom ji gis ci loo xam ne nañ ko bindee duni mu ne ko doom ji lii de ni nga ko bindee duni doom ji ne ko déedéet man nii la ko suñu suñu monsieur bindee day day nawloo sëriñam te nee na monsieur kooku di jàngal xale bi bàyyi xale bi moo ko jàngal <laughs> waaye gis nga ko moom nawloo nag sëriñu sëriñam moom sëriñam la xam. moom sëriñam la xam waaye xamut sëriñu sëriñam kon nag moo tax euh, ki ngay jox sa sa doole réew ëllëg di ko ko dénk euh, wóorut dara nga jox ko koo xam ne nii la fi nekkee woon ak say maam wëlbati ko waat nag jox ko euh, sa doom yi réew ne ko demal ñoom ñoom ñoom ñooy ñoo leen di former ba melal neen na ngeen nañ bëgg ngeen mel ñu delloo si waat leen ci réew mi ngeen yoon doole réew mi kaaraange réew moo tax ba <coughs> boo xoolee ci fii nu toll nii ah, ci wàllu um, eh, sunu sunu armée yi eh, malheureusement malheureusement da ngay gis ne formation bi ñu leen di defal ca France da leen di topp ba eh, lépp lu France bëgg ci réew yi rek moo fay am. ndax loolu dañuy wax ne dafay waat ci li ñuy tuddee ay accord de défense yoo xam ne dañuy aju ci wàllu pacte colonial boobu foofu lañ leen cay formé formé leen ci ci ci ci ci ci accords yi ar accord de défense yi dañ koy respecté dañ koy respecté lool ko defee bo loolu nag buñ ko respecté ba di ko doxal ci sunu réew yi euh, malheureusement sunu doole réew yi ci loxol français la bu ji nekk tomb yi nga bu ñu ko toppee benn par benn. Mhm. dina dem ba euh, ñun liñ ciy gis wala wala boog euh, résultat bi. waaw dafay wane ne ba daanaka bu fekkente ne nee nañ am nañ indépendance yi daanaka tur rek. loolu la gis. Mhm. moo tax man dama jàpp ne ba tey jii amaguñu indépendance <coughs> bu ñu neexee ñu tuddee suñu bopp ne tey lañ ko a nekk ay dépendant mhm. ndax ñaare ki forme bula bu ci lëm gëm. indiwaat la tegle ci sa kanamu askan da ngay gis ne da ngay am gis-gis boo xam ne dootoo ko bokk ak sa waa askan. da ngay am comportement boo xam ne dootoo ko dootoo ko bokk ak sa waa askan fa askan woo jëm ak fa ngay jëm dootu nekk benn. c'est parce que ka na muy gisee ngay gisee fu mu la fa muy joxoñ ngay joxoñ malheureusement moo tax ñun ba tey lañ tey lañ gën nekk dépendant. wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi. Fafa TV xam naa ne am na relation ak tomb bii di ñëw mooy juróom-benneel bi euh, lan moo leen différence ñoom ñaar. jërëjëf <coughs> lii moom lañuy tuddee sañ-sañu France bi mu am ci déployer ay troupes ak intervenir militairement ci euh, sunu réew yi pour lan pour défendre ay intérêt. loolu itam xam nga lu rëy la ñu dem ba ñu ne doole réew mi troupe militaire yi fi nekk France am nañu sañ-sañu mën leen ak déployer mën leen a jóg leen ñu ne bëri ñu ne fuñ jëm ñu ne dañuy défendre intérêt France même bu fekkente ne intérêt France bi ci biir réew mi la waaw danañ ko défendre donte ci biir réew mi la gis nga bag boobu bi ñu koy jàpp am na ci militaire yoo xam ne ay militaire eh, ivoirien la ñu waaye nag comme intérêt France moo taxaw dañu dem jàpp président boobu mu loolu lañ si woon ak ñoom moom suñ pacte colonial la métti na doy na waar la waaye xam naa ne eh, lu jar yaatal la xam naa di ñaanit mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan eh, ñu gën ko mën a tasaare rawatina ñi nga xamante ni ñuy safoo di seetaan Fafa TV Euh, ñi leen di ñaan ñu gën ñu wéy di abone euh, aussi di aimer vidéo yi ñaareel ba it nañ euh, fexe ba di ko partagé ndax loolu mooy tax mu gën a yaatu ndax lépp njëriñ lay jur. Mhm. kon yemul yemul foofu sax sëñ Moussa dama ci tegaat tuuti ne non seulement ñoom ñooy am sañ-sañu déployer sunu force militaire yi waaye am nañu sañ-sañu ñëw stationné ñoom seen i troupe hmm. waaw en permanence nag. nga xam ne réew mu leen neex ci fukki réew yi ak ñeent ñu ñëw stationné fa seen i troupe militaire ñoom français yi te xam nga ne ka lay jox ngànnaay dana jox boppam ngànnaay loo xam ne du la ko jox ndax moom mooy tëgg bi mooy defar ngànnaay li te mooy sa kilifa te xam ne ne niimu mu saytoo sa suuf jaarut yoon kooka bu demee ba di la jox looy aaree sam réew wëlbatikuwaat indi ay doomi réewam stationné leen ci pegg sunu force armées dana leen jox ci arme loo xam ne xajul ci yim jox ñii loolu xam nga lu muy jur complexe d'infériorité ci sunu maanaam dafay jur euh, benn uquda benn benn fasuk bakkan maanaam ndax yow da ngay jàpp ne kii la formé indi la moo la ëpp xam-xam ci lim la formé benn ñaareel ba it da ngay gëm fas ne moo la ëpp fuuf gën la sophistiqué ay armement yim la jox ak yam téye euh, naataangoo amul seen diggante kooku nag dangay am complex ci kanamam maanaam da ngay tuutal sa bopp ci kanamam te malheureusement ñëw na ba fekk si la gisam réew ne la yow yaa war a défendre samay intérêt andil naa la nag samay doomi réew teg ko ci sa pegg stationné leen foofu ñu suut la foofu nag ci xam-xam ñoom ñoo lay tàgg ñoo tàggatoon kat yow officier bi ña la tàggatoon laa la indil ci sa fegg jox leen nag ci armu loo xam ne yoroo loolu lay moo tax foofu fu doy waar la koo xam ne. complexe boobu foofu nag laa ci laa bëgg a ñëw ne la li dal militaire bi mooy dal beneen intellectuel bi politologue beeg euh, ka ca des. ndax li tax ma ne mënut dafa am benn euh, docteur vétérinaire beneen waa la nag fàtte naa tur moom dafa jàng bañ jox ko lijaasaam ca ca France ne ko yow léegi docteur vétérinaire nga. waaye mu xool docteur vétérinaire yi nekk ci France ñu mën di euh, fabriquer seeni i seeni seen bi maa bi lépp lu aju ci fànn ji ñuy liggéey ñoom ñoo koy fabriquer ñoom docteur yooyu di la ko indil yow docteur africain bi. moom moom dafa ne dafa ne man dama weddi sama doctorat parce que sama morom mee ca France di doctor comme man su ñaari titres yi di benn moom muy produire di fabriquer man mënumaa produire man mënumaa fabriquer kon man semi semi docteur la mhm, semi docteur laa maanaam genn wàllu docteur la sama xam-xam genn wàllu xam-xam la loolu nag moom lañ xam ñun ñëpp bu ko defee moo waral lii nga wax nii maanaam nangu gi ñu nangoo tuutal suñ bopp ci seen kanam loolu nag benn euh, mbir la bu doy waar boo xam ne <coughs> boo ko xoolee da nga koy gis ci lépp ci lañ demee ba tey tëgg tëgg yi nga xam ne ñoo nekk ci sunu réew yi nekk ay ingénieur waroon ñoo tëggal lu ñuy jukkee euh, gaz bi ci biir euh, suuf si waroon ñoo tëggal ay njumtukaay yu ñuy jukkee pétrole bi ba tey ji gis nga tëgg yooyu nga xam ne ay ingénieur lañu ba tey ji mënaguñu liggéey loolu moo tax ñun dañuy nax njàng meek boppam lañ war a xoolaat defaraat ko ci façon boo xam ne dootuñu am soxla di yóbbu suñuy nit ñoom ñu diñu ko formel loolu nag dafay laaj taxawaay boo xam ne euh, ci kanam xam naa ndaw ñi yal na yàlla gën leen dimbale waaye jàpp naa ne génération yii di ñëw lii seen maam yi nangu woon ak seen baay yii ñoom yaakaar naa duñ ko nangu incha allah. ci njàng moom nga wax est-ce que jàpp nga ne dina yomb ndax buñ demee bay laam-laamee ne ñu ngi am du ñuy bëgg dugal ci njàng mi waaw pour yàq ko rawat na di ko jàngal ay xale yu ndaw muy éducation sexuelle boobu nga xam ne ñu ñaa ngi ci coow fan yi yëpp ñaawteef ya nekk ci biir nag sëñ sëñ daara kenn mënu la ko wax sëñ daam wax na ci lu bari ñoom sëñ Babacar Mbuub ñu ngi ci wax lu bëri waaye nee naa la la ca nekk ci ñaawteef UNESCO programme am bi yàlla bu sotti <coughs> yàlla bu sotti ndax bu sottee xale bi day am liberté totale ci yaramam à l'âge de six ans sept ans nga xam ne fu ko neex mën na faa joxe yaramam ci masturbation lépp lu mën a doon est-ce que yëg nga ne loolu fi mu ne nii sunu UNESCO bi adopté na ko malheureusement. te loolu gannaaw bi nga xam ne maanaam dem nañ ba jox xale bi ba jox xale bi ay droit maanaam nga xam ne waajuram sax amatul droit yegg ak moom fenn fi bu ko defee ñu ñëw nag indil ko imposé ko yoo xamante ni tey mu ko mu mu nar koo dundee nga xamante ni xale boobu ëllëg bu màggee ban xale la nar a doon. ban xale la nar doon te wutal nañ leen ay gouvernance ñoom xale yi. Hmm? waaw wutal ay gouvernance scolaire yoo xam ne ci liise yeeg njàng mu ndaw meek fépp foo dem da ngay gis ne ab gouvernance ma nga fa xale ya la boot ay gars yi taxaw ca kaw mag leen fuuf su ëpp ëpp leenum xel yor programme bi di ko inculquer ci biir xelu xale yi ak kelaatu kale yi wan leen nouveau droit yooyu ngay wax yëpp nag waaw waaw nouveau droit yooyu yëpp wan leen ne fi mu ne seen yaram lu leen ci neex ngeen mën a def euh, loi yaa ngi nii ci seen pegg di aar droit yi leen ci neex def leen musiba wi li ñu nar a dund si. est-ce que xale boobu xam ko ne patt nag. xam ko ne patt. ba na bëgg ko bëgg cee hmm, xam ko ne patt bëgg cee dugal suñuy doom daanaka sax su ma yeboo dugal nañ leen ci ba pare xale boobu ëllëg naka lay mën a nekkee ingénieur. koo xam ne ba muy nekk lu tuut tànk lañ ko yar ci bànneex rek ak topp bakkanam ak fo kooku du xam-xam du nekk ci bopp bi te nag ñoom lobby maçonnique bi seen doom yooyu ñoom ña nga ca kaw di jàng fas fas yéene wéyal notel gi ak bu ndoxatal gii moo tax loolu la. loolu xam naa ne ci la ñuy dugg directement ci septième point bi. ci euh, accord yi nga xam ne France signé woon na ko. Mhm. septième bi daanaka soreewul ak lii ndax moom it daanaka ci wàllu njàng lay wax. Mhm. France naka la def ba imposer ñu langam mu nekk suñu langue officielle te ñun ñu am ay langue yu ñuy wax dëkk ay kàllaama yoo xamante ni nii fii la samp samp baax ci réew mi. Mhm. gis nga seen làmmiñ wi bi mu fiy ñëw dafa fekkoon euh, magi réew mi. alhamdulilahi rabbil alamina sampoon ay jàngu jàngu yooyu daan jàngale nja di ci làmmiñu arab ay daara yu yu yu yoo xam ne ay université la woon waaye biñ ñëwee dañu ne làmmiñ wii ñu fekk ci réew mi nekkuñu ay langue langue de culture et de civilisation maanaam kon langue ay barbar la moo tax suñu làmmiñ bi ñun dañoo ñëw tuutalal ñu ko war na ñuy seen làmmiñ bi waree waree su ci bind xam-xam muy arab beeg wolof beeg séeréer beeg soninke bi feek delluwuñ nag ci sunu làmm yi làmmiñ yooyu duñ masa am ay sabax xam nga lu reelu la sëñ Dia mag moo xam ne dem na euh, ba am juróom-benni at juróom-ñaari at ñu ne ko kaay ñu jàngal la nooy waxe te yow wax moom yaa ngi am ci sa ñaareelu at mooy delloo nañ gannaaw retardé nañ la juróom-benni at ci gannaaw nga commencé léegi jàng wax comme xale bi juddu tey di jàng wax yaag njàngum wax yaag njàngum wax yaag njàngum wax ba ñaar fukki at presque ci kanam ñu génnee waaye ba maîtriser nga nag léegi làmmiñ wi bi maanaam fa nga amee ñaar fukki at yaa ngi tolloo xale bi am ñaari at ndax moom itam maîtriser na làmmiñ wolof xam-xam dugagut bu fekkoon ne nag ci suñu làmmiñu réew lañ ñu jàngalee xam-xam balaa xale bi di def école fukki at ñaar nekk ingénieur konoon sunu tëgg yi nu fi fekkoon nag sunu lawbe yi lépp lu jëm ci wàllu li ñuy tuddee euh, xarala gu jëm ci wàllu tôlerie yi nu nuy defaree woto nu nuy tëggee avion yëpp fa tabaarakallaa ci bi diiru fukki at ñaar lañ koy mën mais malheureusement jàngaguñ moo tax école bi nekk nekkul sunu école. Mmh. Mmh. mais dañ ko criminaliser. criminaliser ko. Euh, non seulement waaw doon doon nga ko waxee la dañ ko criminaliser euh, diaboliser ko terroriser nag ñi doon liggéey ci domaine bi kenn ñemeetu la liggéey fital lu tax c'est parce que sang bee ca France moom dong moo am sañ-sañu liggéey fitalam ñëw di ñu ko jaay tëgg yooyu lañu waroon a dimbale ñoom ñoo gaaw léegi léegi ci transformer réew mi ak lawbe yooyu man jàpp naa ne université ñoom lañ fa waroon a yóbbu Euh, tey ñu nekk fa ay professeur budget bu ngand bi ñuy def ci enseignement ak éducation mocce mocce waat ba buñ ko jëloon def ko ci tëgg yi léegi tey ñoom ñu transformer réew mi def ko ci ràbb yi ràbb amoon nañ ay rab yoo xam liñ daan sol ñoo ko doon ràbb léegi tey lépp lu nuy solati fii lañ koy defaree ci biir réew mi mais malheureusement yooyu yëpp dañu tardel bu ko defee nag loolu dafa nekk mujj ndeysaan nekk obligation ci ne français moo nekk sunu langue officielle ñu ne déet waaye ñu ne it moo nekk sunu langue de euh, de de l'éducation pour l'éducation ku ñu yarati daal nañ la yar ci làmmiñu français moom ngay wax boo ko waxee rek ñu ne iskay xam-xam boo mën a yor nag ci mën a defarum réew comme xamuloo euh, la maanaam euh, feraguloo kii su am soow ci mën a wax fransai dañuy jàpp ne daanaka. bokk na ci complexe bi dem nañ sax ba nit buy wax ci làkk woowu noonu bu ci defee fóot sax dañ koy reetaan jàpp ne maanaam euh, <laughs> waruñu nit nit waru warul warul jëfandikoo langue boobu di ci def fóot. wallaay ndeysaan loolu loolu loolu moom lañuy tuddee nag complexe d'infériorité dem ba sa làmmiñu bopp yi moom boo koy wax da nga naan ah man nag ngeen baal ma samay wolof neexut te ki koy wax di wolof ah. <laughs> samay wolof neexut te buy wax français. dana ko tubaabala tubaabala tubaabal ba doo ko mën a xàmmeek mm. eh, ka juddoo ca France ñeem wut caa dagg benn lëngal wenn arab loolu nag tomb boobu nag gannaaw bi ñu ko waxtaanee du ñàkkee ñu xalaat yan solution yan en tant que imam en tant que jàngalekat maanaam solution yi nga jàpp ne jàpp na ne buñ ci jaaree war lu mel ni war na fi jóge wala boog ñu dem ba gëm suñu bopp xam ne ñun làkk bi ñu am làkk bu noobul la boo xam ne war nañ ci mën a jàng sunu xam-xam di ci produire comme ni yeneen comme ni nga xam ne noonu nga koy jàngee ci français bi di ko produire. Mhm. am na ay mbokk yu jàmbaare yoo xam ne euh, demoon nañ ba fabriquer fi ay ay lettres. Mhm. xamoon naa ci benn xale bu ñu doon tuddee Assane Niane fabriquer ay lettres man mii fabriquer woon naa ay lettres yoo xam ne dama ko defoon alphabet wolof nga xam ne doo doo ko jëlee ci làmmiñu arab bi doo ko jëlee ci làmmiñu bi. Euh, ñu mën cee jàngal xale bi wolof ndax moom dootul di nekk am njàng lettres yi rek lañ lañ koy wan mu xam ko mu commencé léegi bind bu dee calculag ak lu mën a doon mën na koo def ci ci ci ci ci lettres yooyu ak chiffres yooyu il faut ñu dellu foofu. loolu fu ngeen ci toll yéen a ngi ci kii ba léegi. malheureusement doo gis kenn ku la soutenir doo gis kenn ku la soutenir ndax comme li ma la wax léegi ñu dem nañ ba créer li ñuy tuddee francophonie boo xam ne mu ngi yegg ay organisation satellite partout gën a sàmmaat mu ñu français bi pour gën ko fa jëmbat il faut nag ñu góorgóorlu jëlee ko fi jëmbataat ñu réew mi pour mën a am i borom xam-xam hmm, mënta ñàkk. Euh, xam naa directement noonu la ñuy tàbbee ci tomb juróom-ñetteel bi nga xam ne ci wàllu économique lay wax franc CFA. franc CFA mu nekk loo xamante ni ñun sunu économique daanaka ci lañ ko tabax euh, xaalis boobu yan inconvénient la am ci ci ñun ak est-ce que am na avantage. Mm, ngaañ ay ngaañi kese la te malheureusement moom la ñu obligé ñu war ko utiliser muy franc CFA boobu nga wax la dañ war a sax wax lan mooy franc fa franc mooy franc des colonies françaises d'Afrique kon ba tey ñun buñ ne français franc rek rek d'accord nañ ne ñun ay colonies françaises d'Afrique la ñu. mooy mu CFA bi nga xam ne moo ci nekk. moo ci nekk. moo beeg boppam kon loolu lay lii lay tekki waaw. franc des colonies françaises seize d'Afrique nga xam ne kon ñun kayit wi ñuy jëfandikoo ak mone bi mu ñuy xamal ne yéen ay colonies françaises ngeen maanaam euh, libre gu leen te it nag euh, sëñ ja am réew mënuñu libre te amuñu l'indépendance financière. amuñu l'indépendance économique amuñu eh, l'indépendance eh, eh, éducationnelle il faut yii yëpp dañ ci war a am sunu indépendance door a mën a nekk réew mu moom seen bopp xaalis bi ñuy tuddee français CFA moom laa doon wax ne li muy coûter fukki réew yi ak ñeent moom dong moom laa defoon calcul bi ne moo moo lay jox cinq cent milliards de dollars deux cent cinquante mille milliards loolu yëpp France a koy jël ci sunu sunu sunu CFA bi maanaam sunu euh, jiba yi te bàyyi wuñ ci sax xel réew mel ni nu muy demee moo tax inconvénients yi kenn mënu koo lim. kon mën nañuy wax ni Sénégal bu ñuy wax ne dañoo am bor boobu noonu maanaam ñiy calculer ne mu ngi toll ci nangam pour cent mën nañu wax ne kon chaque année bu ñu demee ci sunu xaalis dañu tibb jox ñu bu noppi di calculer bu noppi réserve bi moom moom mën ngi fa ba léegi. moo fa ba léegi. Ah. réserve ak di yokk ndax chaque année waxoon naa ci xutba bi démb ne sunu jëwrin yi yor wàllu koom-koomu réew fukki réew yi ak ñeent. juróom benni a weer yu nekk daañ dem tase kilifa ga ca France wan ko ne ko ah sunu gafakaak réew kat fii la toll moom mooy rapport. danañ ko wax ci kanam. Mm-hmm. il faut ñuy envoyé ay rapport juróom benn weer yu nekk na yow ci kanam jarul yàkkamti kon daal dafa mel ni maanaam ñun am nañ indépendance mais teewul ba léegi ñoom la ñuy liggéeyal exactement ñoom lañu fi nekkal amuñu indépendance ñoom lañ fi nekkal ñun daal seenu seenu nag lañu comme ni ma la ko mën a waxee nagu rat woo xam ne moom mooy rat rek di jëfandikoo mais li ñu mënoon a jàpp kay mooy ki nga xam ne hmm. moom moo jiite réew mi am na benn image bu doy waar boo xam ne xam naa ne su fekkonte ne faafa mën na koo jël ba wane ko mhm. ma ne borom image bi yal na ko yàlla fay waay ni mu wane France mhm. mu ngi nekk genn euh, benn waay boo xam ne mu ngi ne fëtëx mhm. toll ni nu mar <laughs> de Italie yaa ngi ko yor de mu ngi kon nag baax na mu ngi ne fëtëx saan africain bi nag mu ngi nekk seen màggat soo xam ne mu ngi jeex takk waaye teewul moom mooy yëkkati rek di kuddu gi mu jeex na jeex na jërëjëf maanaam ci rapport boobu nga wax nga xam ne ñi yor euh, économie et finance chaque juróom-benn weer dañuy dem jébbal euh, rapport mmh. euh, France maanaam ñu gis ne li jaadu woon xanaa ñi jiite réew mi mmh. ñoom ñoo waroon dox tànk yooyu au lieu que ministère yi maanaam loolu bu fekkente ne mi nga am xanaa dafay wane ne daanaka maanaam ministère yi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo nekk ci réew yooyu France moo leen tabb directement wala boog loxo mi ngi ci. ma nga ca ndax fi mu ne même sunu gouvernement yi. bu ñuy taxawal seen i seen membre di gouvernement euh, liste ba dañuy koy yot France France yebal ay inspecteur yu leen di inspectel ñii ñooy ñan seen démb nu mu mel seen tey nu mu maa nekkuñu ay anti anti français yooyu yëpp dañ ciy bàyyi xel bu ñu leen gëstoo nag ba gis ne ñii ñoom ay pro français lañu ñu ñu wéyal liste boobu <laughs> mbir mi. moo tax sunu ministre ministre yooyu nga xam ne malheureusement ñoo yor finance ci Afrique maanaam sunu fukki réew yi ak ñeent waaye français lañu waaw ñoom rek ñooy xam lay dox ci mbir ma fu mu toll ñëw di informer lañ ci mën a informer seen i président. Hmm, wax dëgg yàlla patriote mënut loolu ku ñuy tuddee patriote du nangu lii te nee naa la lii obligation la ñoom ñu ngi ko tuddee l' obligation d' envoyer en France. un bilan annuel et un rapport d'état des réserves suñuy réserve yëpp dañuy dem defal leen ko benn rapport d'état patriote mënut loolu patriote mënut loolu waaw patriote pur bu fekkoon ne doon nañ ko lañuy njëkk a def mooy rupture rompre ak situation bi tëgg sunuy sunu monnaie bopp am leen l'indépendance ndax Afrique tey marché la boo xam ne li fiy dund ci ay doom aadama fa la ñooñu bu ñu amoon seen seen seen seen monnaie maanaam euh, bu indépendante monnaie africaine moo tax gis nga gars yi doon fexe yëpp dañ leen a liquider ba ci xasaaf yi mu ci mu mujj mu ci mujj mu ci mujj naroon na taxawal benn mone africaine boo xam ne ci or lañ koy tëgg mais loola mooy li gën a waral ñu jël ba kanam France parewul mukk pour lii euh, tege tegeeku ci loxoom hmm. maanaam est-ce que gént nga lu mel noonu euh, ëllëg mm-hmm. maanaam euh, sunu borom def mu antu maanaam ñu am ay njiir yoo xam ne dañuy ñëw lépp loo xamante ne France tegoon na ko fi ñu bañ ko ba noppi teg fi loo xamante ni dafay jural askan wi njëriñ. njëriñ waaw man nag am naa ci yaakaar ndax njàng mi fi mu ne xóot na euh, sunu doom yi ak sunu sët yi jàngantuwuñ te appui accord secret yi yëpp. leer na ci seen bopp ngaañ yi yëpp leer na ci seen bopp te nag fi mu ne alhamdulilahi rabbil alamina euh, takku nañ fi te ëllëg seen ëllëg la jàpp naa ne lii nga xam ne moo nekk ngaañ ci sunu réew yi ñoom duñ ko seetaan ëllëg muy wéy moo tax xam naa ci njort lu rafet ne day day métti rek waaye dana fi jóg mm-hmm, incha allah ci kàttanu yàlla ak ndimbalam kon xam naa ne temps bi mi ngi ñuy xoj dañuy ñëw directement rek ci dixième dixième point bi waaw mm-hmm. moom it nga xam ne ci secret yi nga xam ne France ñëwoon na ko. <laughs> bu reelu la waaw waaw secret bi dixième point bi boo koy lire. Uh-huh. moom itam ñu lire ko rek directement mooy renoncer à toute alliance militaire avec d' autres pays. da nga dañoo signé ak France ne lépp loo xam ne alliance la militaire France lañ koy amal maanaam alliance mooy ràbbaloo ak jàppaloo am kóllëre ci wàllu militaire kóllëre googu suñu diggante ak France rek la. mais duñ ko teg beneen réew loolu lu doy war la ah xanaa ba lañ ko mën a séq ak beneen réew mooy lii ak accord bi wax mooy sof autorisation de la France nga xam ne buñ demee bëggoon ko am ak chinois yi wala ñu bëggoon ko am ak ñeneen dañuy dem ne ko ah bàyyi France lii kat lañ bëggoon ah, bëgg ko am ak beneen réew bi di nangam ak nangam mu xool ko gisu ca benn ngaayam ne mën ngeen a seq ak moom ay ay alliance militaire. <laughs> mais loolu bu ci d'accordul du am. déedéet loolu lañ signé ak ñoom loolu lañ signé ak ñoom de. kon xanaa loolu taxoon ngay bala ngaa tontu ci bi. <laughs> waaw normalement dafa dafa reelu. <laughs> reelu na moom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dafa reelu lool lool lool lool kon kay jaratul dëgg-dëgg ñuy wax naan ex colonie française wala yu ñuy demee loolu dañ ko war a bàyyi dañ wax rek euh, ni ko français fa bi waxee. ay colonie française mu jeex. Mhm. waaw. Mhm. lu mel ni li nga wax noonu moo fi am mooy France bu xasee bëgg. Mhm. moom mooy jël même bu prix baaxul. waaw xam nañ ne comme wàllu pétrole bëgg yu ne am na si yu bëri daal Sinwaa yi ñoo gënoon a baax prix. fuuf mais France ak Turquie léegi nag sama wax mooy ñi nga xam ni. mooy yenn politiciens yi nga xam ne ñaare dañuy faral di dénoncer yu mel noonu. waaw waaw ñoom est-ce que ñoom maanaam xamuñ ne lii mooy origine bi. maanaam lii accord la. président li mu def noonu. Mhm. nekkul ne moom dafa am beneen sañ-sañ. mais nii la sañ est ce que duñ xool ñu itam loolu pare jekk balaa ñuy wax nii. moo tax raar ngay gis euh, politicien bu nekk ci parti au pouvoir wala opposition buy wax ci lii ndax ñun ñëpp xam nañu accord yi. te dañoo pare pour rapport yi wéy. amul sens président. Mhm. si ñoo gënoon baax. Mhm. Euh, offre d'offre appel d'offre bi. waaw si France te xam nga président sañu loolu ndax ndax rapport yi mhm. maanaam li ñu signé ko amul am sens est kon moom wartu wax lee balaa mi wax jërëjëf lii la ñu waroon njëkk a lijjanti rompre accords yi abolir rapport yi moo tax ma ne néew na sax ci ñoom ku ciy wax ci problème bi nga foog ñi nga dégg yëpp ñu ciy wax ay ay nit ñu libre la ñu indépendant ñoom ñooy wax naan accords yi normalut sunu alal lañu ñu sàcc mais ñooñu doo ci dégg lu ay politiciens yu bëri de waaw ah, ndax ku ko ci wax boo demee France joxoñ la nee la yemal ci sa wànd kon xanaa lu mel noonu moo waral comme ku ci mel ni Thierno Alassane Sall nga xam ne nekkoon na fi ministre euh, bokk na ci information yi ñu jot mooy euh, am na lu ñu ko bëggoon a signaloo mu xool ca intérêt Sénégal gisu ko ci mu bañ euh, looloo waral ñu génne ko ci gouvernement bi. man de miinuma jëmm jooju di Thierno Alassane Sall waaye ci acte boobu ci laa ko nawloo ma toog wax dëgg. ndax loolu patriote moo koy def waaw ko bëgg sa réew ya moo koy moo koy def moo tax ndaw ñu mel noonu yal nañ gën a bëri ci réew mi. xam naa ci dixième point bi. waaw euh, ci ci ci ci onzième bi. waaw ci la ñuy ñëw mu nekk point bu mujj xam naa incha allah bala ñëw tëj waaye moom itam xam naa ne xaw na reelu tuuti. reelu na tuuti moog bi passé nii daanaka benn la maanaam loolu mooy l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre et de crise mondiale. ne yàlla tere traité ko su France duggee ci guerre wala mu nekk ci crise boo xam ne crise mondiale la ñun ñëw xool naan France a tooñ wala tooñut déedéet taxaw ci peggam rek sunu militaires yi yëpp la ñuy déployé ña dem leen taxaw ci kanam France comme niñ ko defee woon ci deuxième guerre mondiale sunu maam yu bari fa lañ dee waaw loo xam ne ëpp na million ci ay ay soldats africains yoo xam ne joxe nañ seen bakkan pour xeetli France mu wér leen ne tey bu fekkonte ne million yooyu demutoon France Allemagne yi jë Allemagne yi jël Allemagne yi jël nañ ko bu yàgg. ba léegi déggatoo France. France raafoon na moo tax normalement tey France dafa waroon a nekk benn eh, département ci Afrique nga xam ne africains yi ñoo ko yilif ndax tey bu fekkee ne Afrique Afrique mu ngi exister grâce à ñoom. ëllëgu France tey bu Afrique demoon ba moom boppam. Sénégal demal boppam Mali demal boppam kenn ku ci nekk maanaam say ressource yëpp yaa koy si yaral sa bopp. intérêt yi fi France daan jëlee dematul léegi mi ngi fi. Mhm. ëllëgu France noo ko noo ko gisee bu boobaa nag euh, noo noo jàpp ne moom noonu lay. Euh, très bien laaj boobu la ñuy tëjee xam naa waaye laaj bu am solo la nag ndax boo xoolee da ngay gis ne ñun ci ni ni ñu doon xalaatee mooy ñun mënuñoo dem sans France. fekk loolu français yi ñoo jëfandikoo seenu ñaw ba tabax ko ci suñu cerveau yi moo tax colonisation bi gën a lu mooy ñu coloniser sa cerveau coloniser sam xel coloniser ni ngay xelaatee nga xam ne ni ngay xelaatee ñu naan la deel xelaatee nii deel jàppee nii loolu malheureusement moom la ñu def ñun africains yi ba ñu jàpp ne mm, ñun mënuñoo dem sans France mais déedéet l'inverse bi mu am France moo mënta dem saa ñun tey ñun bu ñu jukki woon suñu loxo ci France France bokkaat léegi ci pays am en en voie développement sikk amu ci ndax suñu lépp maanaam léppi France yi ñu lay bawoo léegi imaam bala ñoo tëj euh, fukki point yi ak ñaar yi mu nekk secret yoo xamante ni France si ñëwoon na ko bàyyi ko fi muy doog a jeex barki démb fukki point yi ak ñaar yëpp nga xamante ni ñu ngi dund pendant des années xamuñu ko point yii nii maanaam yan yan yan euh, yan ngaañ yi ci gën a fës yoo xamante ni dund nañ ko ñun ak tey euh, maanaam est-ce que am na am na benn avantage boo xamante ni dund nañ ko ci. xam naa bu ci avantage amee day bëriwut. ngaañ yi daal man daal ngaañ rek laa ci gis te leer na ma ne. comme yàlla def na dund nañ ko juróom-ñaar fukki at juróom ci xam ne tey moom dëgg dëgg dëgg dëgg libre nañ ñëpp war a taxawandoor nag nekk bloc ci ne na fi yem ndax benn avantage amu ci pour Afrique Afrique moom lépp ci fukki point yi ak benn ngaañam kese la moo tax normalement ci njeextali daanu profité woowaat euh, ONG yi organisation yi euh, jeunesse bi plus particulièrement ñi nga xam ne activistes yi nañu gën a jëlaat point yi gën ko vulgariser luñ ko mën a tasaare ci làmmiñ yi yëpp nag pulaar séréer wolof buñ ko mënee amal ay canal yoo xam ne sax danañ ko mën a jàllale ba ca kaw ga mu nekk yuñ bind ci lakku réew mi wala ñu wax ko ci lakku réew mi mu nekk ay ojo ñu tas ko ñëpp di ko déglu dana tax ñu xam ne ah ndeke ñun ka li tax mënuñoo dem ba léegi lii la sëñ Moussa li fi nekk ci koom-koom fii ci Sénégal bu nu ko exploité woon ci intérêt africain yi waaye dama naan fii ci Sénégal rek ci intérêt euh, sénégalais yi euh, ñàkk moom dafiy jóg doy na sëkk rek ba gaasu nga jege bi nga xam ne ñoom kële door taxawoon nañ fii di wax naan depuis lu ëpp ñaar fukki at ñu ngi koy exploité mm-hmm. premier ministre taxawoon fii ne loolu amut mm-hmm. weddi ko audio yaa ngi fi alhamdulilah rabbi vidéo yaa ngi fi moo tax kontaan naa trop ci vidéo yooyu biñ ko wane waatee mu taxaw di wax ne képp ku leen wax ne Sénégal am na toq euh, pétrole bu buñ fi nu mu tuddati exploité wala libre gaz ku leen ko wax lam wax nekkut amut ah moo tax yàlla moo gaaw ci àtte léegi nag man yaakaar naa fii lañu ñu doxee nag yow loola ñu plus xamaat fukki ak <laughs> accord yi ak ak benn normalement fii lañu ñu war a doxee bu ñu fi yeewoowul moom dootuñu yeewu waaw mhm. war a jóg nag imaam euh, xam naa bala ñoo tëj moom itam euh, bëggoon nañ rek ñi nga xam ne ay kilifa lañ rawat nañu ñi tuddee kilifa diine ci ci ci ci Sénégal mhm. ñu nekk ñoo xam ne ay mbooloo yi mbooloo ñoo leen topp ñoom itam dañoo am baat ci réew mi mhm. tey bu fekkente ne yu mel nii feeñ na askan yëpp xam ko ñoom taxawaay lañu war a am seen digganteeg ñañu par rapport ak yii nii par rapport ak tomb yu mel nii muy taxe coloniale yu yu doy waar yi mm-hmm. man day jàpp naa ne kilifa diine yi mm-hmm. bu bu accord yi leeree ci seen bopp mm-hmm. daañu def ay réaction daañu def ay réaction ndax itam euh, ci réew mi lañ bokk yàlla jaxaat leen ci beneen cër ci biir réew mi mooy def leen ñu ñuy déglu askan wi dañ leen di bàyyi xel di leen déglu bu baax moo tax dañ leen di ñaanal borom bi tabaraka wa taala li ñu yaakaar ci ñoom ba tax ñu di leen diglu loolu yal na ko yàlla sottal ci ñoom ñoom itam yal am matuwaay ba ak taxawaay ba ba yii ñu ñu doon lim léegi mu nekk ay ngaañ ah, dëgg-dëgg ñu mën cee taxaw nag wax ci ak askan wi ubbi ci bëtu askan wi ndax fi mu ne nii kat yaakaar naa ne lañ daan wax naan kilifa diine yi dañoo xamut lu bari loole moom dàqu na ndax kilifa diine dafa dafa a xam mhm, loolu dafa war a xam te njumtukaay yi ñuy xamee léegi yaatu na la oto daal ñu ngi séntu ñoom incha allah ay taxawaay yoo xam ne yu positif lay doon ah. yàlla na ko yàlla def amiin yaa rabbi ñu ngi jéggalu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan dañ cee a njàmbaas ay question yoo xam ne rot na ci kii bi ci euh, commentaire yi mm-hmm. waaye dafa mel ni temps bi mayun ñu ko ñu ngi sant nag euh, voilà internet yooyu waaw internet yi nga xam ne ñoo ngi lay topp di la suivre xam nañ ne it aussi ñu ngi jëriñu ci yow mm-hmm. ndax sa vidéo du wàcc lu dul ne Euh, ñoom ñoo ñoom ñu ngi koy topp bu baax baax di ko seetaan di jëriñu di commentaire di leen wax ne it incha allah commentaire yi am am na ci laaj yu ci ñëw bu soobee yàlla ko jagleel jour boo xamante nii imaam dina ci tontu bu soobee yàlla waaw incha allah nga bokk ñu ngi koy ñu ngi suivre xam naa li ñuy njëkk a def mooy remercier leen yéen ñi nga xam ne yenn a yor seen bi di ci def liggéey boo xam ne bu mucc ayib la mooy yal na yokk gën a sophistiqué ba information yi gën a mën a tasaaroo ñoom ñi nga xam ne ñooy internautes yi ñu ngi leen di jërëjëfal ndax temps la ñuy joxe te temps lu fort la temps la ñuy joxe pour mën a suivre euh, vidéo yi ci déglu geeg boppam ak xool gi en même temps seen alal lañ ciy defaat kon ñu ngi def seen temps ñu ngi def seen i alal di jënd seen i crédit di ko ci def muy jeex te loolu yëpp xam naa ne euh, bëgg-dëgg ak euh, bëgg a sàmm dëgg jàppale dëgg pour mu taxaw moo leen ci moo leen ci moo leen ci xiirtal ñu ngi leen di ñaanal borom bi tabaraka wa taala yal yàlla gën leen a yokk kattan euh, financier euh, lu ñuy mën a toppee chaîne bi ba liñ ci séentu yëpp ñu fekk ko ci ñoom it ñu ngi sàkku ci ñoom ñu di ñu ñaanal di ñu gàggante it nag ci yenn njumte yi ndax doomu aadama benn matul moo tax lépp luñ ci génn di ko ci njumte rek mën nañ koo bind ci chaîne bi incha allah daañ ko daañ ko jëriñoo ñun yal yàlla fay ñëpp yiw ñu ngi jërëjëfal internet ji bu baax di leen ñaanal yàlla subhanahu wa yàlla yokk leen kattan lu ñuy mën a suivre mbir mi kattanul xam-xam kattanul am-am ba lépp lu ñu bëgg a tabax ci seenu réew bëgg ko tabax ci àdduna bi yàlla jox leen euh, moyen yoo xam ne dana méngoo ak lañ bëgg a taxawal ba loola mën a taxaw mu nekk njëriñu doomu aadama yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu di ko jaajëfal bu baax a baax moom euh, imaam Alioune Badara Ndao mu nekk loo xamante ni lu am am solo la loo xamante ni am nañ ci mbégte loolal lool lool lool ndax yombul euh, koo xam ne dafa am yéene defar yéene tabax ab société yéene tabax euh, génération boo xam ne bu ëllëgee dina jéem a taxaw ngir changé bon bon yi nga xamante ni moom moo nekk ci sunu société. kon euh, ci loolee la ñuy tëjee incha allah di ko jaajëfal di jaajëfal mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy topp ci Fafa TV di am mbégte ak kontaan bu baax a baax ci ni nga xam ne noonu la ñuy abonné mais ni nga xam noonu lañuy ñuy euh, suivre vidéo yi ak di ko partagé di leen ci gën a encouragé pour ngeen gën a continuer ci loolu di leen jaajëfal di leen euh, dig daje incha allah ci lu yàggul dara ñu ñëwaat ak yéen ci yeneen interview ak ci yeneen i euh, thèmes yoo xamante ne ni yuy amal njëriñ askan wi la rawat na ñu koy seetaan ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa wéy leen di abone ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi Fafa